jërë ngeen jëf mbokk yi nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax ñu ñëw jox leen nouvelle euh, boo xamante ne dal na ci kaw Farba Ngom Farba Ngom nag euh, ku ne xam ne eh, jamono yi ci nguuru Macky Sall gis nañ eh, ñaawteef eh, yi mu fi def yëpp euh, gannaaw loolu nag bi Diomaye jëlee réew mi gis nañ ñoom ñëpp daanaka ñi ngi daw di jënd réew mi Farba nag moom moo ci njëkk demoon fële ca Makka dem defa umra Euh, waaye gannaaw loolu nag ñëpp yaakaaroon dina ñëw ci réew mi mais Farba Ngom daw na dem fële ca États-Unis dem rek jamono yi comme ngeen ko gisee ci image yi Farba nga fële ca États-Unis di làqatu ngir bañ euh, ku ko jàpp waaye nag euh, damay wax ne que ni fekkee yàgg-yàgg di nga teer si Sénégal donc ku daw ba xamoo foo jugee da nga dellu fa nga jugee woon incha allah loolu dina ci am parce que ñoom ñëpp bu neexee yàlla dañ rendre compte parce que lii Euh, ñoom war nañ koo séntu et tout donc tey jii loolu ñëw na et euh, daw jëru ko fekkee nag da ngaa def du jub donc kon jëru daw kii di Lamine Camara tey euh, ci banc bi la démarré mais dugg na ci biir match bi ci à la deuxième mi-temps donc malheureusement nak euh, dañ leen gagné donc gannaaw bi ñu euh, tegalee ñaari match gagné ko aujourd'hui dañu leen gagné looloo tax barrages euh, barrage la jouer pour mën togat ci Ligue 1 française Lamine Camara nak boo xol depuis presque ay fané ngi nii dafa ñak place titulaire am foofee ca Metz donc lolu nak waral ay jix jax am ci Sénégalais né na gaaw jugaat réveillé wat yew wat dugaat ci terrain parce que si un jeune il est il a énormément de talent mais il faut a liggéeyaat donc xale la donc day gën a jàng te xam nañ ne marge de progression bu baax a baax a baax la en tout cas ñu ngi koy xaarandi moom euh, Lamine Camara lii la jox wéy laajte di commenté jaa ngeen jëf. jërë ngeen jëf mbokk yi nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax ñu ñëw jox leen. nouvelle euh, boo xamante ne dal na ci kaw Farba Ngom Farba Ngom nag euh, ku ne xam ne eh, jamono yi ci nguuru Macky Sall gis nañ eh, ñaawteef eh, yi mu fi def yëpp euh, gannaaw loolu nag bi Diomaye jëlee réew mi gis nañ ñoom ñëpp daanaka ñi ngi daw di jënd réew mi Farba Ngom nag moom moo ci njëkk demoon fële ca Makka dem dafa umra waaye gannaaw loolu nag ñëpp yaakaaroon dina ñëw ci réew mi mais daw na dem fale ci États-Unis d'Amérique, rek jamono yi comme ni nga koy gisee ci image Farba nga ci États-Unis di laqatu ngir bañ euh, kuko japp waye nak euh, damay wax ne que yag euh, fekke yag yag di nga téré ci Sénégal donc ku daw ba xamoo foo jugee da nga delu fa nga jugee woon dina ci am parce que ñom ñepp bu rien, yalla dañ rendre compte parce que lié pour ñu war nañ ko et tout donc tay ji loolu ñëw na et Euh, daw jëru ko fekkee nag da def du jub donc kon jëru daw kii di Lamine Camara tey euh, ci banc bi la démarré mais dugg na ci biir match bi ci à la deuxième mi-temps donc malheureusement nak euh, dañ leen a gagné donc gannaaw bi ñu euh, tegalee ñaari match gagné ko aujourd'hui dañu leen a gagné looloo tax euh, barrage barrage lañu jouer pour mëna a ci Ligue 1 française Lamine Camara nak boo xol depuis presque ay fané ngi nii dafa ñàkk place titulaire am foofee ca Metz donc loolu nag waral ay jix jax am ci Sénégalais yi ne na gaaw jugaat réveillé wat yew wat dugal ci terrain parce que c'est un jeune il est énorme il a énormément de talent mais il faut a liggéeyaat donc xale la donc day gën a jàng te xam nañ ne marge de progression bu baax a baax a baax la am en tout cas ñu ngi koy xaarandi moom euh, Lamine Camara lii ñu ëllëg wax wala like di commenter jaa ngeen jëf. jërë ngeen jëf mbokk yi nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax ñu ñëw jox leen. nouvelle euh, boo xamante ne dal na ci kaw Farba Ngom Farba Ngom nag euh, ku ne xam ne eh, jamono yi ci nguuru Macky Sall gis nañ eh, ñaawteef eh, yi mu fi def yëpp euh, gannaaw loolu nag bi Diomaye jële réew mi gis nañ ñoom ñëpp fa daanaka ñi ngi daw di jënd réew mi Farba Ngom nag moom moo ci njëkk demoon fële ca Makka dem dafa umra waaye gannaaw loolu nag ñëpp yaakaaroon dina ñëw ci réew mi mais Farba Ngom daw na dem fële ca États-Unis dam rek jamono yi comme ni nga koy gisee ci image yi Farba nga fële ca. États-Unis di làqatu ngir bañ euh, ku ko jàpp waaye nag euh, damay wax ne que ni euh, fekkee yàgg-yàgg di nga teeri Sénégal donc ku daw ba xamoo foo jugee da nga dellu fa nga jugee woon incha allah loolu dina ci am parce que ñoom ñëpp bu neexee yàlla dañ rendre compte parce que lii yëpp ñoom war nañ koo séntu et tout donc tey jii loolu ñëw na et daw jëru fekkee nag da ngaa def du jub. donc kon jërul daw kii di Lamine Camara tey euh, ci banc bi la démarré mais dugg ne ci biir match bi ci à la deuxième mi-temps donc malheureusement nak euh, dañu né a gagné donc gannaaw bi ñu euh, tegalee ñaari match gagné ko aujourd'hui dañu leena a gagné looloo tax barrage euh, barrage lañu jouer pour mëna a ci Ligue 1 française Lamine Camara nak booy xol depuis presque ay fané ngi nii dafa ñak place su titulaire am fofé ci Metz donc loolu nag waral ay jix jax am ci Sénégalais né na gaaw jugaat réveillé wat yew wat dugaat ci terrain parce que si un jeune il est énorme il a énormément de talent mais il faut mu gëna a donc xalé la donc day gën a jàng te xam nañ ne marge de progression bu baax a baax la am en tout cas ñu ngi koy xaarandi mom euh, Lamine Camara lii ñu def wax like di commenter jaa ngeen jëf. jërë ngeen jëf mbokk yi nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax ñu ñëw jox leen. nouvelle euh, boo xamante ne dal na ci kaw Farba Ngom Farba Ngom nag euh, ku ne xam ne eh, jamono yi ci nguuru Macky Sall gis nañ eh, ñaawteef eh, yi mu fi def yëpp euh, gannaaw loolu nag bi Diomaye jëlee réew mi gis nañ ñoom ñëpp daanaka ñi ngi daw di jënd réew mi Farba Ngom nag moom moo ci njëkk demoon fële ca Makka dem defa umra waaye gannaaw loolu nag ñëpp yaakaaroon dina ñëw ci réew mi mais daw na dem fële ca États-Unis dem rek jamono yi comme ñu koy gisee ci image yi Farba nga fële ci États-Unis di laqatu ngir bañ euh, ku ko jàpp waaye nag euh, damay wax ne que ni euh, fekkee yag yàgg di nga téré ci Sénégal donc ku daw ba xamoo foo jugee da nga delu fa nga jugee woon incha allah dina ci parce que ñom ñepp bu neexee yalla dañ rendre compte parce que li yëpp ñu war nañ ko séntu et tout donc tay ji loolu ñëw na et Eh, daw jëru ko fekkee nag da ngaa def du jub donc kon jëru daw e kii di Lamine Camara tey eh, ci banc bi la démarré mais dugg na ci biir match bi ci à la deuxième mi-temps donc malheureusement nak euh, dañ leen gagné donc gannaaw bi ñu euh, tegalee ñaari match gagné ko aujourd'hui dañu leen gagné looloo tax barrages euh, barrage lañu jouer pour mëna togat ci Ligue 1 française Lamine Camara nak boo xol depuis presque ay fané ngi nii dafa ñàkk place titulaire am foofee ca Metz donc lolu nak waral ay jix jax am ci Sénégalais né na gaaw jugaat réveillé wat yew wat dugaat ci terrain parce que si jeune il est il a énormément de talent mais il faut mu gën a liggéeyaat donc xale la donc day gën a jàng te xam nañ ne marge de progression bu baax a baax a baax la en tout cas ñu ngi koy xaarandi moom euh, Lamine Camara lii la jox wéy laajte di commenté jaa ngeen jëf. jërë ngeen jëf mbokk yi nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax ñu ñëw jox leen. nouvelle euh, boo xamante ne dal na ci kaw Farba Ngom Farba Ngom nag euh, ku ne xam ne eh, jamono yi ci nguuru Macky Sall gis nañ eh, ñaawteef eh, yi mu fi def yëpp euh, gannaaw loolu nag bi Diomaye jëlee réew mi gis nañ ñoom ñëpp daanaka ñi ngi daw di jënd réew mi. Ah,